loola dafa feeñ kon jëfi Serigne Saliou jooju Serigne Saliou ko jëf waaye da koo yéene àddina kenn ku ne am ci xam ngir jariñu ci moom moo tax mu ne ko nay feeñ foo toogate nañ ko fay takk te xam nga ni moom fu mu toog mbooloo fay ne kon mbooloo koy gisandoo te lu mbooloo di gisandoo léegi mu wisaaroo ba ñëpp mën caa jot kon la nga cay xamee rek mooy sëriñ saliwu ci boppam moo jublu mbir mi feeñ yooye mbubb nag lan tàmbali woon di ko waxtaane ba jeexal nan benn bi kem leenu ci xam muy madda ilayya madadan li yuxlidu fa taabati nafsu wa taabal xaladu loolu ñëpp diglu nañu ko kenn ku ne ci nun am nga toppoon nga ko ban amoon ca ñetti bind loolu di benn mbubb kon di wane itam ne Serigne Touba waxe ba ki nga xam ni daa wéet ci li doon moom yàlla wéet na ci jëmmam jëmm ju mel ni moom amul te ku am jëmm feeñ ci moom di firi ak Serigne Touba am ñu ne ko waaw Mbàkke présenté nga nu ki nga xam ni moo tax mbir mi mën am muy kon yàlla mi alwasihu di al munfaridu moom nga wax ni moo feeñal ci yow li ngay bëgg a wax te li mu feeñal ci yow mooy firi li nga doon moo tax mooy firi sama sëriñ tubaa li tax bu nee sëriñ tubaa ñu war a wax amul moroom yooyee la wéet nag ne woon naa leen mooy loo xam ni fekkoo ca kenn te kenn du la ca fekk ndax su fekkee fekk nga ca kenn wéetatoo ca dangaa wéttali ka nga ca fekk boo ca yàggee ban fekk la ca wéetatoo ca dañ laa wéttali si naka la ca fekk la wéttali si baatu wéet mooy loo fekkul kenn te kenn mëntu la ca fekk te Sëñ Tuubaa nee na bi abadin la abadin del gi dun yàlla baa gi di barsàq alif gi di àllaaxira di wax ñetti àddina yu bokkul xam nga ni duniyaa ñun ñëpp xam nan ko mooy monde bii nu dëkk monde bii nag maam aadamaa ko sanc Sëriñ Tuubaa nee na bagage yi may bëgg a wax la dala ci aadama mi sañ ci àddina ba keroog yàlla wal buftu bi kenn mësu fee jaar kenn mësu fee feeñ ba feeñal lenn ci lu mel nii mbaa nga am dara ci yu mel nii yooyu dama caa wéet ci dunyaa gii kenn mësu ko fee wane te du yàgg mukk itam ba keneen ku dul man wane ko fii waaye yemuma ci itam waaye wéet gi baagi ci la baawug abadin bar sàq lay wax mooy ka njëkk a faatu ba kay mujj faatu kenn du jaar foofa ba nga siin ca moom dara ci yu niroog yi ma leen di bëgg a wax waaye alif gaay àllaaxira pencum yàlla ma ka fay njëkk ñëw ba ka fay mujj ñëw ba ne rek leen mbir yaag yépp lu fa waay réy réy maqaama nga xamne bis la bo xamni yawma yow tubla sarairu fama lahu min quwwatin wala nasir yàlla neena ci lay feñal secret ya kon bari na ay secret yo xamni jott feñ ci mo romanti mën wut ak kenn motax man la bobu bayit serigne touba lay firi moo tax nay lan bihi fi abadin anfaridu motax madda ilayal waatihul munfaridu may bihi fi abadin anfaridu kon primi mi la Mayor ko xamni ma Mayor yor ay mbubb yoy ma yor ay jagle yoy may feñal lol ci man mi la ko ndax man rek ka man lolou moy primi nak nga ñew nak ci tekki ni moy loli nan nga koy ba mu gën ba ba gën koo mën a xam gis nga bii bayit na nga na ñemee wax ca kaw nii lépp lu téere mën a àtte lépp loo mën a jàng ci lislaam te Sëriñ Tubaa def ko baa mu jaar ca bokkut ak bii bayit maa la ko wax man de dem lépp lu téere mën a àtte lépp luñ mus a bind lépp lu lislaam xam doonte Sëriñ Tubaa ko def bokkut ak bayit bii ndax loolu firiwul ak Sëñ Tuubaa am ndax loola am na ñu ca fekk te dana yàgg bañ fekk ko ca itam gis nga Sëriñ Tuubaa daa def ci julli lu kenn mënul waaye loolu mu ca def li muy rëy rëy firiwut nay ren bii fii abadi dund na ci saaxir ndax moom du fi jug moom waaye ci wàllu saaxir laa lay wax nga xam ne dund na soixante-quinze ans juróom juróom-ñaar fukki at ak juróom biir soixante-quinze ans yooyu sëñ Tuubaa mësta julli tiim julli gu nekk da ko jàppal sëriñ Basiir wax na ci mel nu baaxal xaddiim daal ne sëñ Tuubaa nee na ko benn yoon la ci mës tim tiim te keroog ba muy tiim ka nga xam ne moo ko yoraloo setalaam nga dañoo jiyaloo woon ci dox na moom bu dee dox boy daw sax doo ko a dab comme ni simbe ci doxé lay doxé nga xam ak doxam ci géej gi bu gisul jakk yitam dana am barab bu mu wadalal bopam jappé ko jakkam gis nga ñeenti bantam yam sampon ngeen dégg ñu naan yéeli sé coow loolu nga xam ni seen kan koy nekk li moy fu mu sa nekk ndax kon day melni la ràpp mooy julli wona ci julli kenn ku ne man ngaa am jàkk fu ne waaye danga fi bàyyi géej gi nag loolu nag arbaa bi xëyri arbaa bi dayri li baaxi mayri awis di day saxaaba yépp daan julli ak ñi ci topp ñépp bésin bi fenki saa yër donte moom mosu fi jug kon moom njëkkoon nañ ko ci mu def ci lu kenn mënul te ci wàllu saahir nii Sëñ Tuubaa du fi jug mukk waaye ba ci ginnaaw mi tam ba ba geew tey gi dong jàkk ju ne julli na ko kon defoon nañ ko njëkk mu di ko def ci saahir kiin muxtadir kullu waliyin ak kullu moo ko def dama ne la bayit bi sëñ Tuubaa lay firi waxuma la Abdoulaye lay firi néewuma la Xaadimu Rasuul lay firi néewuma la Ahmadu Bamba lay firi dama ne bayit bi sëriñ tubaa lay firi mooy li tax sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa ba tax ñu naan amul moroom mooy li mu wéet li mu fekkul kenn te kenn du ko ca fekk ba pare fii abadin ci àddina barsàq al ñu ne ko loo daa xëddee ak loo daan doge mu ne dëkkoon naag genn garab goo xam ni saa yu doggetee danaa fàq ca xob ya daat koy tottal ba mu noyyi ma daal di muucu ndox ma ngir def dog bi bu xëdd jotee ma defaat noonu amul kenn ku mus a def loolu ci weeru koor ku dul Sëriñ Tubaa loola itam firiwut fi abadin anfaridu ndax day mel ni ki saaxir njëkkut a woor kon loola ñam ca fekk da leen wettali si waaye ci wàllu saaxir itam ba tey gaa yaa ngi woor nag kon nag du fii abadin anfaridu kon ci gàttal dama jël ñaari exemple yooyu rek waaye lépp loo xam ni la ju sëñ tubaa def baa muy lu téere bind baa muy lu nu xamoon ba daa ko jàng rek doonte sëñ tubaa jaar na ca laa wax def ca lu kenn mës a gis itam firiwut fi abadil anfaridu moom na ngeen xam ne bii bayit firi sëñ tubaa de nay lan bi fii abadan anfaridu mooy loo xam ni mooy wane Sëñ Tuubaa ak Sëñ Tuubaa nag yii mu ci feeñal lu kenn mës mësta gis la kenn mësu koo xam ba di ko def te kenn duutu ko man ba di ko defaat ku dul moom rek loolu la bayit bi di wax kon ñaar yi ma la jox misaal mooy yóbbaale yi ci def yépp lépp lu la mën a wax daal ndeem am na ko ko defoon mbaa am na ku koy defaat loola bokkut ak lii lépp nag ci la njàngum alxuraan meek yooyu yépp rek ci la rek ndax ma leeral ko nii nag lu rëy nii faaw danga koy leeral léegi kon wax naa la ni la mbooleem yoo xam ne xamoon nga ko donte ci biir diini ji la wala ci biir lislaam ji wala lu téere mën a bind bokkut ak lii loolu yi Sëñ Tuubaa ko waxal boppam de ndax dafa wax ni hahuna yooyu may wax maa mooy loo xam ni laa yukkutabu kenn mësu koo bind te lu la fi mën a wax nag ci diine ji luñ bindoon la moom te ñu ngi koy bind ba tey walla yun taxu lam min mësu koo tudd te lu lay nettali ci taarix yi am gum amoon a tax taarix man ko nettali nak yi may wax daal mësee su ko bind mësee su ko jàng mësee su ko waxtane ndax daa mësta xew bal yi xoraf man rek ka koy feñal ta da ci xamal kuma cey ku ca mus wa yaskurullaaha tabaaraka wa taala halihi yow mom da ngay sax ci di sante rek motax ku mus ci yoyu faaw nga dib takon mom ndax foofu cant gi rek ciy des bu ko defee léegi fii abadin du kon soo ko bëggoon a firi yan exemple ngay joxe pour nu mën a xam ni mooy firi Sëriñ Tuubaa ak Sëriñ Tuubaa ji yooyu rek daa bari waaye danaa am yu ma ci indi waaye bi ci njëkk kay mooy Sëriñ Tuubaa bi mu feeñalee yoonu murit ci biir yoonu murit dafa indi Seex Ibra Faal baabul manam ak bay fal nan ma wax ak bay fal fan la ma sa xew ci adina ba adina soso nak la wax de waxuma yónnente rek de adama mi san ci adina ba fi may waxe yéen ba ba wal wal buftuba, ba nee bi biib yónnent wala bi waliyu wala bi nituk yalla momu sa sampu ay jëm ci geew dunu julli dunu wor dunu not asaka dunu nu aj màkka gën a jege yàlla seenu yoon gëna gaaw ñuy ñëk aljana ku leen di nga dem sawara nañ ma wax ko comme sa def musta am seigne touba ko feñal loolu fekkul kenn def ko mu di ko defandoog mom mom mu ko defee léegi itam kudul mom moom mënu koo tollanti kenn mënu looloo tax sam bi mu ko defee baabul muridiina la ko tudde mooy sama yoon wii di murit dama feeñal ko fekk lislaam am ma def ci li ma ci def lépp daal di génne nag ak murit teg ko ca kaw muy la sut lépp kon ca sëñ tubaam nga looloo la génne loola nag fii abadin anfaridu la moom àddina doo fi gis ko la ko firil barsàq doo ko fa fekk àllaaxira gën jëm doo ko fa fekk Sëñ Tuubaa mi ko def dong nga ko man moom dong nga ko xam moom dong nga koy àtte waaye yemul foofu am na yenn exemple yoo ci mën a indi yu indi Sëñ Tuubaa ak Sëñ Tuubaa gi mooy loo fekkul kenn te kenn fekkul ca la mu wéet mooy wax ak Sëñ Tuubaa am moo tax ci lay wax wa fii fustu inna lesi min na ilahi hustu xaaba xañil kaw ni waaye wa fii fustu yi ma feeñal te mës am ci dina sama wéet ci la ne sama ñàkk moroom ci la ne beneen exemple ba la ci joxaat mooy Sëñ Tuubaa kay ni nga xamee ni noonu noonu la doxe ak ku mel ni Maam Seex Anta loola koy wane na ak wéetam mooy da koo may boppam gis nga àddina bi nga xewee léegi ku mën a may nit boppam amu fi sëñ Tuubaa daa jóge Màkka Daaru Salaam yoon Kajoor la sosoo 1883 bisub àjjuma ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor àjjuma jooja alxamis da ko jiitu moo doonoon leeratul xadri ja bés booba la sosu ci atum asasi mooy 1883 bu ñu jógee Mbàkke Kajoor jëm nag Daaru Salaam biñ di joxe waaye ku moomoon sa bopp sañoo doxe no li nu Sëriñ Tubaa defal ñeewuñu ko fi mu sa jaar maye ñu nangu ñu nangu ñu nangu mayee ga yow nu dénkaane la nanguwoo ko xam nga ni yow boo nee gore nga gorewoo bari na ci ñun ñoo xam ni sin bi soxna am la jël boole noog moom def na ko muy sun jëwrin waaye nangu wunu hmm. kun dénkaane nga lànk nag sun la maye woon doo dem loolu moom na ko ku ne xam <laughs> kon buñ mënee waat ni defal nañu cër bu ken kenn ci ñoom nañ ci boole mën a waataale ni rawul nu ci taalu te loolu gu jafe la moom mooy lu sëñ bi def ci yow mu neex la ca saase ñooñu dañ leen a maye maye ga neex leen kon kun booleeg jëwrin te ànd ga neexu la xam nga ne yow bu la maye woon doo dem boobaa nag la nga ca war a xamee rek boo leen ëppee daraja itam ñoo la ëpp taalibe kon nag li ma bëggoon wax foofu rek mooy loolu sëñ Tuubaa def da caa wéet may may nit boppam waxuma la sax may nit nit دي واي ماي نيت بوبام يو ماي نحلا سبب لول لا كين مستديك لولو تاخ مو سانيو نو دخي نام دا دخي لول نا دا تا ويتي تاميت دودو ديغ كين كوكو ديف منين اكزامبل بي كي داب نان ما واخ كوي نانغ نيبلوك دريت دريت دي جودوغول نا نانغ نيبلم بامي كو تخي مستخيو تي جامونو سينتو باكو مان buur siin ku mëndoo feen bi mu jébbalu ko sëriñ tubaa da koo jébbalaale siin te ca biir waa siin ña juddoogul te nar caa bokk nanguwaale na seenu njëbbal kon njëbbalu deret ja la nangoo sëriñ saali woo wax seex bi ne ko bépp séeréer bu askanoo siin ak janaay këram ndax buur siin a jébbaloon boppam sëriñ tubaa jébbalaale siin sëriñ tubaa sëriñ tubaa nangu seen njëbbal ga motax tax séeréer soosee sépp nit ci aljana la ñu nañ ma wax na ko mana a nangu njëbbalu deret ñu juddugul nga nangu seen ñeubal ba ku juddu tabbi ja seen Tuubaa ko ma sa xewal hmm. dama toll ci andi la yi nga xamni moy nay leen bi fi abadin an faridu ndax yu melni ku koy wax wala nga wara jox nit ñi exemple yoon ko xamee ban xamni ñun daanu wunu waye serigne touba mi li mu wax ci beytam bi serigne Saliou rek ka sañ ju ko moomale kenn waaye cey kenn ko momale daa fekkoon moo ko moom rek waaye lu dul loolu du mën a ne sëriñ def daan dawul de bu ko defee waaye loolu yëmunu ca nangu njëbbalug jur muy bàyyi ma Musta am ci jamono ku ko def mooy bay nit moom xewon na fi mu jëbbalu ñu nangul ko ko waaye bàyyi ma sëñ tubaa njëkk nangu njëbbalam sëñ saaliwu nee na buur siin daa jëbaa Fasa fasaw ma ni wax jaxaaw sëñ tubaa nangu ga nañ ma wax koy nangu fas musta sa am ci àddina fas nga nangu ko eh lo jàngal taarix yi ngay loolu mosoo koo dégg sëñ ko njëkk def kenn du ko tóllanti nag moo eh, xam li fas di wax rek kenn da ko def waxuma nag ne di nangu njëbalam waye yamu ca geureum bayima nañ ma wax ko ma sa def ngeureumul yalla li nu am seigne Tuubaa defal nako fas bi ah fasam ma ni wax ngeelemu moy xawnullaahi nimbulul yalla lako tudde won ñu koy wax ngeelemu mom la seigne da war seigne abdourahman Lo moo bind ne moom la Sëriñ Tuubaa woo ba mu ñëw mu ne ko Abdourahman mu ne ko Mbàkke mu ne ko fas wii daa làq ngërëmul yàlla ma bëgg la koo jox ngir nga liggéeyal ci sa borom Sëriñ Tuubaa confirmé ni fasam wa am na ngërëmul yàlla te moo ko gërëm ah, nan nan moo ko mës a def mësta am ci waaye dama ne jëf jii mu nuy jëfloo li ñu ci defal lim nu ci defal Sëñ Tuubaa jëfloo na ab xaj muy kalbu ba noppi defal ko ca li mu defal murit bu ko liggéeyloo lan ma wax ko musa def loolu ci àddina ndax tubaab bi ko daa garde bi mu nekkee résidence surveillée fii ci njaareem am na koo xam ni bi bu set daana ñëw xool ni sëriñ bi toogi am na bis bo xamni ni bi muy ñew mom mo and ak eh, soxnam ak xadam bu ndaw ci mbir la mi andi nako ko ci minahul miskiya neena na bi muy ñew nga xamni ni la ko andi won deug jamono joju tubab bi da la la la lempo lempo bi nak ñetti dërëm ci ëppoon ci jooja jamono waaye jojo jamono tembe seigne touba di tambali jumaay ndarim di laaj ñaar fukk ak juróom-ñetti dërëmi ngurdu bop bu nek gën ja néew te touba bi ñetti dërëmam yi da ko tëtti ci te gal na ci biar mooy ko ko joxewul am ngay daan ñaar fukk ak ñetti sëriñ bi nak forcé wu ko kenn ba nopi dañ ko koy jox ba di ko ci miri loolu jahal jaaxal tubab bi ci lan yabale kooku mu ànd ak soxnaam ak ab xaajam ñu gunge ko mu ñëw ki sëriñ bi te téere bi sax lay wax ni dugg ga xawoon naa jafe nga dañ doon bañ xaj bi dugg ak yooyu waaye bi coow li rek la sëriñ bi nañ ko bàyyi mu ñëw kum àndal waaye ba mu dugg see di wax ak sëriñ bi ci loolu ne ko lii nu mën a ngay laaj ni mu tollu moo tax nanu moyu naan fii la jamono ji toll ak dëkk bi daa dëgg rek sëriñ bi li muy digle nangam ak nangam liggéey yi daa bari nañ ko moyu ndax moom moo moom wërsëg moom moom xéewal yi lu mu la sant defal xamal ni lu toll ni lim lay sant noonu lay yëkkatee say xéewal ndax Sëriñ Tuubaa gën a xam jamono ndax moom moom jamono kon bu fekkee ni yëg ne ni ñetti dërëm moom la tubaab yi laaj mu jafe mooy laaj murid yi ñaar fukk juróom-ñett xam nga ne yokk na wërsëgu murid yi ba yóbbu ko ci ñaar fukk juróom-ñett moo tax mu mas a sañ leen koo laaj moo tax lu la sëriñ bi digal ak lu mu ca dolli say xéewal la yokk waaye yàlla nga ko xamee noonu bu ko defee nag ba mu ñëwee coow la bari na waaye la ko sëriñ bi wax mooy da ngeen yilif taax yi ma yilif li ci biir taax yi mu ne ko xawuma li ngay wax mu ko di ngeen yilif jëm yi ma yëm ma yilif xol yi moo tax li may laaj mën a ne te li ngeen laaj mënta ne waaye kooka it yàlla dimbali ko rek mu ne ko waaw lii ngay laaj sax yow ku ko joxe lu ko ci fekk mu ko li ma la ci mën a wax daal képp ku ci joxe mooy sax njot ci ci sawara maanaam boo naroon dem sawara dootoo fa dem àjjanaay sa kër loolu mooy li ma la ci mën wax la wax mu daat koy laaj ni ko loolu ndax day aajowoo ci gëm la bokk ki say taalibe wala mu ko sama borom waxuma ci loolu lépp ku joxe la ma wax xam nga ni si mud lamin nee na kooka dafa joxeel boppam ñaar fukk juróom-ñett joxeel soxnaam ñaar fukk juróom-ñett joxeel xaj bi ñaar fukk juróom-ñett ñoom ñëpp ci dugg nag nañ ma wax nag jëfloo xaj ko ko mos def ba noppi li nga dig muri di ci jëf ji nga may ko xaj bi seigne touba ko def waye duma ma faatu rek dama fi sax faw te duma fi juk jamono ci nek ma ngi yeen te ñama tel dina liñ jeriñ ba nga xam ne maa ñooma sëñ ko ndika wax ken mësu wax ken duutu ko wax ken mësu def ken duutu ko def ni nonu noonu xasaa itam yi min mu yeggale ci mës xew ci àddina si alxuraan moo gën ci li ñuy bind waaye te yónnent bi nee na bari na kuy jàng alxuraan alxuraan di la rëbbu araf yu toll ni ba rëbb yu toll ni arafi alxuraan te arafi alxuraan bi toll na ci un million araf yu teg juróomi junni ak juróomi araf koo xam ne nag alxuraan dalay rëbbu lu toll ak un million ak juróomi junne juróom ci ay yoon te bu mooy lan yàlla na la yàlla duma duma digle loo def duma duma tere duma duma tere loo bàyyi nga xam ne yàlla nee na yow mi jàng alxuraan bari na ku koy jàng alxuraan di la rëbb rëbb gu toll ni arafi alxuraan te alxuraan ak gën a ci liñ daan bind Sëriñ Tuubaa ñëw ci jamono feeñal fi am mbind mu tudd xasaa itam yi daal ne mii mbind nag njariñ lu alut lor la soo ko doon yàq sax waxuma yow mi koy yàq waaye fa koy yàqe kenn du fa yàqoo waaye yëwuma ci loolu mii mbind ku gisatul sëriñ bu matub sëriñ boo ko jàppee mu yàggale la ci yàlla mbind mu yàggale jaam ci yàlla nag مستخو تي جان جامونو سيغ توبا كو فين دي نايلن به في ابد انفردو تي لا بوكو توصل اقلامي الى الله حامدا بلا خلوه ولا ابقى كما احنا لولو اي اكزامبل لا موي اي مثال اوب نكو تي سيغ توبا فينال موي فيري اك سيغ توبام nga xamne mom rek ko man sañ sañ bi may talibi yi sañ-sañ bi mu def ci dëkkam bi di tubaa sañ-sañ bi mu def ci morit gi yi mu feeñal te mës sa xew yooya du jeex waaye yii daa ci joxe exemple ci nga xam ne lii fiiri Sëñ Tuubaa ak Sëñ Tuubaa gi lépp luñ la fi wax lu loola rëy rëy rëy doon lu fi mës a xew baa fi kenn mës a def baa mu mës a bind waxul bayit bii na bii daal yëfi Sëñ Tuubaa yi dong lay wax lii firi ne sëñ tubaay mooy amul moroom ji rek moo tax ba yit bee amul moroom léegi nag sëriñ Saliou bi mu ko yëkkatee dal ne sëriñ Béthio lii mbubbum sëriñ tubaa la yow nag jagleel nam la ko foofa nag beneen déggin gu yees peq day dugg mooy sëriñ Béthio bu ko jagoo bu ko sañsee bul defe ni ya sëriñ tubaa feeñaloon te loola di wane ak wéetam yooya moom la sëñ Béthio tullantiwaat déedéet du doon loolu yooya sax ma nga ca biir waaye buñ ko ko jagleelee noo koy déggee mooy ca biir sëriñ Béthio moomu dafay feeñal moom sëriñ tubaa mi mu doom ay yëf yooyu yooya itam continuité la mooy luy luy yeggale yu yees peq yu mësta xewaat ci jenn jamono ba ci jamono yi Sëriñ Tuubaa mi xewaloon yooyu te xewal gam ko xewal muy wane ak wéetam ci faw ci bii mu ko solalee sëriñ bii day feeñalaat ci moom nag lii firi sama tey june day gàcceel sama démb day feeñalaat ci moom yeneen yëf yëfaan yu yeesaat peq bëgg na a yees yëpp yoo xam ne kenn mësu koo xam kenn mësu koo am kenn mësu koo man yooya di tegtale lan doole Sëñ Tuubaa ji rek waaye du day day tóllantiwaat de dee dee day day day ñoqali loolu Sëriñ Saliou da caa wane ni mu doone sëriñ tubaa waaye da caa wane ni mu doone sëriñ tubaa mi nga xam ni te ju ne day gàccal dimbam ba lépp matee ci moom ba dara desatu fa ba lépp lu doon feeñ ci mbirum yàlla cëppeeloo ci biiram muy assaaliha nga xam luy feeñate moo koy feeñal léegi nag lu mu mujj lu mu feeñale lu ne day bokk ci nay lan bi ñii fii abadin anfaridu waaye continuité la mooy du du feeñal du feeñalaat lam feeñaloon day feeñal yu ko gën a yees waaye day doon lool it nay lan bi ci feebu di anfaridu la mooy da cay wér rek du sa xew njëkk mu koy xewal kenn du ko xewalaat loolu itam danga ciy déggewaat ci itam ne la Sëñ Tuubaa waxoon dañut dane kenn du ko tóllanti kon Sëriñ Saaliwu ak Serigne Béthio ak moom mi moom bay bi di Serigne Touba wuute du fa mën a am ndax bu fa wuute amee ki ko ki indi wuute gi day mel ni moo ko tollanti kon day mel ni wax ji laa deñ te wax ji du deñ moo tax yaay man may yow ji mënta ñàkk foofu léegi rek Serigne Béthio nag bi mu sànni see mum mi daal di koy sol nag mum mi dafa def ay manifestation yu yas peq yoo xam ne sëriñ Saliou mi ko solal moo ko ca manifesté mu doon nay lan bi ñii fii abadin anfaridu yoo xam ne ke seen becco dongu la mas a xew te dootu mosunoo dégg kum xew ku dul moom mosunu koo xam te it Serigne Saliou ma ko ca def defaale na ca dootul xew ci ku dul moom ndax lépp daa mag moo tax yooya nag bari na ku mel ni sëriñ Béthio kay li mu doon sëriñ Saliou def ko ko mësuñu gis ku mel ni moom ci wàllu mbirum yàlla mi rek muy sëriñ bi mu doon sëriñ Tuubaa mi doonoon nay leen bi fii abadin anfaridu xam nga ni ca biir ba muy feeñal loola am na ca wet yëggul ndax murit ga la muy bari bari doole ñun ñëpp yàgg na noo jàng ne sëñ tubaab boolewu ci woon nag mbirum tubaab muy jàngum tubaab ñun ñëpp xam loolu te doole joojal nag nga xam ni moo ca bañaale loola doole jooja mooy nay leen bi ñii de fii abadin an faridu waaye nekkete booba bañu ko ca da ko jotalagul dana ko feeñal li waaye ci sañse yu yees yi yi nga xam ne mu ngi koy daloo ci jëmmam jii mu koy solal nag di sëñ Béthio moo tax mu jaarale ko ci njàngum tubaab ba mu yegg ci fi ci yegg doon ci lim ci doon mu daal di koy def mu jëmmi boppam waxuma la sax murit saarix waaye def ko mu jëmmi boppam ba noppi di feeñal ci moom jàngikat yi tubaab yuy dooni murit saadix te sëriñ saali wu ne bu njëkk kat boroom nay leen bihi fii abadin anfaridu ba muy defi murit ña jàngu tóoni tubaab ñoom la ko daa def léegi nag ci ñi jàngi tubaab ci la koy def fan la ko defe ki sëriñ bee cokku ñoñam kon booba mbubb mu yees a ngi noonu wala manifestation bu yees ndax li tax mu jagleel ko mum mi fawu Fofa mu fay manifester yu yo yo xam day wane sintu bak sintu Sëñ Tuubaa way diko ko wane ki tanki tayam yi tay jii kat ñi ëpp ci ñi and ak mom ay tubaab lañu jang ta kat daawu ko jang di doonuk murid, waaye tay nak man nga ca soy lol gën murid, murit a ni murit gën leen a takk sab karawaat tey saadix di mën a taxaw di jàng yit mën a jaxasoo nit ñi nitee di lijjante sa bopp nekk ci réew yu mel ni réew yooyu ba noppi am ngërëm yegg ci yàlla nite boole ci mën a jaxasoo ñépp eh loolu xewutoon Sëriñ Saliou woo ko indi waaye Serigne Saliou xam ngeen ni jëmm joo xam ni képp ku jëbbalu ci moom am ngërëmul yàlla nañ ma wax bi àdduna sosoog léegi fan la mës a feeñ loo loolu mës ta am bàyyiwuma fenn de léeg-léeg sax am ko juum ndax inna li seen yu bàyyi xoon aka innamaa yu bàyyi xoon allaaha yaddullahi fawqa aydihim léeg-léeg ma dégg ko ni loola yàlla defoon ci uday bi ya sëñ Saliou da koo tollanti ki seen beccoo ma ne jum nan de tollanti amu fa de li sëriñ Saliou def ki seen beccoo bokkut ak lu mu sa xew na ngeen déglu li ma wax de loolu bokkut ak lu mu sa xew la xewoon uday bi ya du képp ku jébbul am ngërëm loolu amu fa waxtaan daa dikk ba yàlla wàcc aaya daan la digal naa leen yéen ñépp ngeen jébbalu ci moom tegu ca la neen nag ndigalul jébbalu lañ am suñu borom ne lu ma neex laa ci fay façon fa nuuti ci àddina xas man waaye waxu leen ni njëbbal gi di ngeen ci jëli lii wala laa dafa joxe ndigalul njëbbalu itam tey diglu yàlla jëbbal gi sax am lu yàgg aaya doo ko di nettali seen ngërëm li ca biir aaya ba sax ni ko alxuraan tegalee dix-sept aaya dox na ci te ci dix-septième aaya bi ni yàllay waxee ci aaya bi moo lay xamal ni diggante ñëbbal ga ak bi muy informé ngërëm lii lu yàgg la ndax da lu yàgg lañ lay fàttali ndax dane ko laqad radiyallahu anil niin yàlla gërëm na jullit ña mu mel ne yenn jullit mu ne is yu bàyyi xoonaka gaa ña nga xam ni keroog ñoo jébbalu woon ci yow mu mel ne xel dana keroog kañ mu ni taata sa gera ca garab ga keroog ñi jébbalu woon ca roon garab ga bu fekkoon ca saasa la wax jooju du ci dugg keroog ña ko defoon ca roon garab ga loolu mooy mi ngi leen rappelé lu nu defoon mu xaw a yàgg mu ne ñu ko defe woon foofa jëlee niñ ci ngërëm kon ba nuy jébbalu wóoru leen woon ni ngërëm lañ ciy jële diggu diggul leen woon ko ci itam dañoo am ndigalul jébbalu yàlla ci coobareem mu toog ba mu soog ko mu wàcc ngërëmam dal ni leen nag keroog ca garab ga booba laa leen gërëmoon waaye tey jii laa leen ko wax tey jii laa leen ko jox loolu bokkut ak li Sëñ Sallou def Sëñ Sallou dañu seen becco képp ku jëbbulu ci yow day am ngërëmul yàlla moom nga xam bi ngay ñëw nan la koy wax nga xam ko seen becco dana na ku jëbbul am ngërëm nga léegi am ngërëm te itam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaari yoon lañ jëbbulu ci moom Udaybiya ak Fathu Makka ñaari jëbbal yooyu moo am ña fekke Udaybiya ñoom bëri wunu lim ba gën a bari ci leen wax mooy mille quat cent personnes junni nit ak ñeenti téeméer am na sax ba gën a néew mooy ñeenti téeméer rek la ñu loolu mooy minimum bi ci waxi gaa yi waaye maximum bi mille quatre cent la te aba yaa ngi tolloon ci cent vingt quatre mille téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni nit kon xam nga ni la ko fekkee moo gën a néew ña ko fekkewul ñako fekkul ñepp nak nag nañ fatu makka ta ta ñi jébbaloo fatu makka kin jébbalu mo yonent bi ñi bi ya kin jébbalu mo yonent bi ta bi ngërëm li ñëwé dafa séparé gaay yi yeen ñi bi ya yeen mom am ngeen ngërëm yeen ñi jébbaloo fanen nak waxuma ak yeen seen bëccu neewunu ko ñi jébbaloo bordo man nañu am ngërëm wa waye wa Tamba nañ xaar wala waa Ndakaar duñ ca bok dan ne ko kep ku jëbbalu ci yow kum do nak fum ko defé nak amna ngeerumul yalla loolu lu yees la musta ta xew ci jenn jamono Sëñ Saaliw ko fendi kon bu kenn ci ak tolenti du ak tolenti lu yes la loolu nañ ko xam bu ko defé nay len bi fi abadin anfaridu bi mu sañsee mum mi loolu bokk na ci yi waaye nañ ma wax ku mës a dégg mbaa yàlla loolu ma sam fenn bi sëñ Saaliwu sax bi mu ko ko waxee pour bëgg koo wan ni mësta am daa tax mu ni ko dama laaj ko jànkat yi nekk lam ca jublu bokk na ca wane ni jàngkat yi luñ bind lañuy jàng te luñ bind mooy lu amoon te ndekete mbir mii mu ko defal ab jànkat xamu ko ndax ki daa sa am ndax wër na di ko laajte ñu ngi ko yaakaari ñépp ku ne wax sa xalaat ñii ne xitq ñii ne itlaaq loolu nag amoon na tëri lool ndekete bokkut ak mbaa yàlla ndax ba mu dikkee ne ko mbàkki xam naa ko nee nañ ma mooy xitq nee nañ ma mooy itlaax mbàkke jërëjëf nga ne ko hum loolu de ci la waaye àggu ca de ba fii mu ne kenn jàngul ba xam ko diglu naa ku mag ku ñëpp naw koo xam ni sax bam fii firee mbaa yàlla ca laa xamee ne mbaa yàlla moom ku ko xamul sax juru lay eh, eh, yedd day lu kenn xamul ndax bu doon lu mën a xam kooka moom mën na ko xam te kooka taxul mu xam ko kon loo cay déggee daa yees peq te mës ta xew sëñ Saliou boo ko xewal waaye ki sëñ Béthio la ko xewale kon xanaa bu nee ko mum mi jagleel nan la ko yëmul ci wax ko ko rek waaye solal na ko ko feeñal na ko itam ndax continuité la ca def loolu da koo sañse ba noppi di ca manifester yoo xam ni nay leen bi fii abadin anfaridu la luy wane sëñ Tuubaa ak sëñ Tuubaa gi rek moy kuy def lu kenn mënu te mës xew te lu lu mujj def lu ñëk la sax lamuy reey reey lu mujj la da koy gàccal te lii ma lay wax waxuma la sax mooy yi xewutoon ci lislaam waaye wax naa la yi xewutoon ci lislaam yi xewutoon ci lislaam mooy yan mooy yi Sëñ Tuubaa feeñal waaye fii ma toll ak yow nag mooy yi nga xam ni waxuma yi xewutoon ci lislaam xewutoon sax ci murit gi waaye borom murit gee ko def de waaye seen bëgg la ko feeñal nag loolu nag ay dogal la ragal ko wax nag mëtu ko loolu nag lu bari la lu buñ ko doon lim du jeex maxarajan kenn déggu ko woon mu mu ku ko defal mu ne ko defal naa la ko gis nga lii mënu defal te defal na ko ci jëmmam ji te ak ko ci ànd gi nu ànd ak moom amul ci àddina kun mu sa dégg mu ni yooyee defal nañ ko ñu ni mel mësuñu ko dégg sëriñ Saliou woonu ko defal waaye nag ci moom la nu ko defale loolu tax may faral di wax ni waxtaan yi muy waxtaan yim nu war a jural mooy gën a fonk di set avril bi gën koo waajal gën koo sopp gën koo mën a jëf ndax li tax mooy lan lii kat sëriñ bee te mooy sëriñ beccu mii moo nu ci boole kat te sëriñ beccu mii bu feeñu toon ci bis bii di dix-sept avril mën a jot kon xam bi mu lim war a jural mooy gën a réaliser gën a xam sunu bis bii dayoo bi ko sëriñ Saliou yóbbu ndax bis la koy réyal mooy la bis ba feeñal la bis ba ëmb waaye bis bii yi may wax yépp moo ko ëmb moo ko feeñal kon loolu ko jox daya bi mu am te moo ci boole itam moo tax mat naa gën a fonk moo looloo tax sëriñ saliw def na sëriñ Béthio muy wasilay borom ngërëm yi nañ ma wax kay loolu fa mu sa amee ci àddina ba ci borom tuwa mi nga xam ni ca mbubbam mu njëkk ma ba muy feeñal waaye moom nag amul tànki ginnaaw jottoon na feeñal loolu ku mus a am ngërëm ku baax ci wàcce na la bu ko defee nga seet leneen loo def sëñ Saliou sax moo ko wax ku ko a am ngërëm kenn sañu tulaa liggéey loolu lu dul mu neex la ma noppi gërëmaat gaañ yi def naa ko muy seen wasiila loolu fi mu ne ci yees yi la peq lu mës ta xew te Serigne Saliou boo ko xewal mu bokk ci nay leen bi nii fii abadin anfaridu mu feeña la ko nag ci jëmmi Serigne Béthio bi lu ci sunu tawfiix nun mooy mën a am ngërëm soobu waat ci yàlla di dem te dootu ñu am fu nuy taxaw ndax dañoo am ku nu ca sóob sunu tawfiix la waaye di seen affaire tax na man ko am kat kon yooyu yi may indi ñun ñëpp ku ne ci nun xam nga ci yoo xam ni mën naa compléter sama waxtaan te dara du ci xaaj du jeex loo xam ne bu nee sëriñ Saliou nee na mbubb mii mbubbum Serigne Touba la yow nag Serigne Béthio jagleel nan la ko la mbubb may wax doon lan lii Serigne Touba naa sama yëf yi nga xam ni ci lan may xamé man Serigne Touba ba tax kuma tuddu lan la nga ca war a teg amul morom ndax moy sama yef yefan yi nga xamné mako feñal ci adina te mustafa am te dootu fi am lu na mako feñal ko nak ci la wit witu faw moy wané sama Serigne Touba bokku tek li nga don jang bokku tek diine ji bokku tek bax loolu mbirum Serigne Touba la tudd di wane Serigne Touba ak Serigne Touba gi loolu Serigne Touba rek ko jagoo sëriñ Saliou wax lu rëy ndax moo ko jël daf ne Serigne Béthio mbubbum Serigne Touba la yow nag jagleel nan na ko ku moomul mbubb sañoo koo jagleel kenn ko ko jagleelu ka ko jagoo mënoo koo jagleelaatal kenn waaye ba mu ko ko jagleelee itam def ko muy jëmmam loola rek doyoon na ci ko am ndimbal gëm ko waaye da caa yëmul da ko firi maanaam da koo sañse ni mu ko firee mooy lan feeñal na ca Sëñ Béthio luy wane dooley Sëñ Tuubaa ji yoo xam ni mësta xew ci jamono mësta feeñ njëkk Sëñ Saalu di ko feeñal mësunoo dégg ku ko am mësunoo dégg kuñ ko wax mësunoo dégg kuñ ko defal mësunoo dégg kuñ ko def moo ko def wax ko àdduna sépp xam ko yooyee nag yii ma ci tudd yëpp kenn ku ko mën a weddi amul sëñ Saliou ko def wax ko sëñ Béthio wax na ko fépp ñépp a ko dégg te bàyyiwul nag ki saahir man làqu na mu dog di ko wax de déedéet da koo wëree fépp ci kanamam ba ñëpp yëg ko te déggoo kenn mokk kon loolu lu muy tegtale jëmmi Serigne Saliou doole yi Serigne Saliou wéetug Serigne Saliou kon ma neen mbubba ngoog mo xamni ni lañ ci doon waxtaane tay di ñaan serigne bi yag fi lool te gëna wër xana tay kenn